asalaamaaleykum mbokki internet yi safoo émission bi di taxaw seetlu maa ngi leen di ziar gën gi ziar di leen bëggee di leen safoo tey nag maa ngi leen di indilaat beneen thème boo xamante ne nii wala toujours ci sujet bi nga xamante ne nii moom la ñuy wax les vendeurs d'illusion ñu waxtaan ku si nekk ci biir xel ak ay xalaat maa ngi dugg nag ci li ñuy wax maxrifa maxrifa boo fàttala ko daara ji mu ngi doon wax naan lii dina nelaw si yow yow yaa ko war a dafa am ñu nga xamante ne nii si Sénégal su fekkente ne ni bugguma sori ma wax ci Sénégal ba ñu wax ci àddina bi yëpp ison sont tellement dotés de capacité intellectuelle mais leur capacité intellectuelle été était leur a été volée dañu leen kaa sàccaat ambale ko ñi leen jël seen capacité intellectuelle yooyu noonu sàcc ko ba pare ñoom jël seeni capacité intellectuelle daal di koy ambale ba pare di leen ko jaay mooy li ñuy wax emballage emballage nag boo ko déggee dañuy jiitu ci li nga xamante ne ni moom la ñu doon wax effet de masse bi bu fekkente ne ni dañu jël Senghor ñu jox ko li lettre xaw ma la ak la ak lan jël ko indi ko li ñu wax xalifatul ard ce qui représente Dieu sur nga dem Laayeen am nañu Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam nga dem Touba Bawol am Saalum am fu nekk si àddina bi am Siin fii nii am Bañaas donc ñooñu nga xamante ne ni ñoom ñooy représenter l'islam si gox bu nekk boo demee ma ba Jaxum Ba ña mu doon xeexal nga dem Lat Joor na nga xamante ne ni ñoom la doon xeexal nga dem Buur Siin nga xamante ne ni ñooñ la doon défendre noonu la tubaab bi jële fu nekk nag mu samp fa koo xamante ne nii c'est une grande tête entre guillemets pour lan pour ñun suñuy savoir suñuy xam-xam moom mu jël ko emballé ko emballage mooy par exemple ma lay jaay benn xaal boo xamante ne ni dama ko jël defar ko comme wëñu cadeau yooyu noonu ñu def si kees yi imaginer xaal bi su ma ko jëlee def ko wëñ bi ba pare def si comme cadeau yooyu noonu emballage bu boobu ak benn cadeau boo xam ne dama la ñëw jox ko directement ni ak benn xaal boo xamante ne dama la jël jox ko directement ni cest à ñaari xaal yi amuñu une différence même xaal bi la mais emballage bi ma embalee xaal bële moo tax xaal bi mel ni moom moo gën xaal bi est-ce que xam nga li ma wax wala est-ce que dégg nga li ma wax dëggantaan dama lii di nelaw si yow yow yaa ko war a yee damaa nekk en service maa ngi nekk ni bi liggéey actuellement ni dama bëgg rek ñu xam ne nit ki du li muy sol wala du ni mu mel wala du fu mu nekk ku nekk nag li muy wax wala li muy wax dafa gën a taxaw si sama intérêt ci mu nekk fa nga nekk moo xam Ndakaaru la moo xam kore la moo xam wherever mun a nekk fu mu nekk si àddina su fekkente ne yaa ngi gis foofu sa bopp te amuloo benn jafe-jafe ci fa nga nekk foofu la jàppal foofu sa baaraam bu ko benn parce que nag bëgguma wax nit ñi ne leen kaay leen si àll bi kaay leen ñu bay xaal kaay leen ñu bay melon kaay leen ñu bay sable kaay leen ñu bay kaani kaay leen ñu bay dunde kaay leen ñu xàpp yi tëdd si taatu garab yi bay dunde wa ba pare nag ah ku nekk nit ku nekk Amérique di gis boppam Amérique ah en pensant ndeysaan maa ngi euh, jaale ndeysaan sama mbokk yooyu dem réew une grande famille ah perte bu rëy juróomi nit de si benn accident ñu xaat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun si yàlla lu ñu jógee si dañuy delluwaat si dañuy delluwaat ñuy fàttali toujours ne euh, yàlla moom dee la njëkk a sàkk balaa muy sàkk li nga xamante ne moom dina amaana ba ñoom seen dund foofu la ko tudde woon mais daal maxrifa daal mooy nga nelaw li di nelaw si yow nga yee ko nga jëm tës tës yi xam nga si mu gën a positif si ni mu gën a lewe kenn bañ la teg xel kenn bañ la andil jafe-jafe du problème mu entre jigéen ak góor système bi moo bind affaire bi ba nga xamante ne dafay mel ni góor ñi dañu amax jigéen ñi problème wala jigéen ñi dañu amax góor ñi problème déedéet ñun système moom moo ñu andil problème mais ñun suñu biir amuñu benn problème suñu waxtaanee rek dañuy juboo parce que plus moyen la plus la ak moyen jigéen mënul dem bàyyi góor góor mënul dem ñu nekk il faut que ñu nekk ñu positivement kenn bañ a loolu effet de masse dañuy ñëw suba incha allah.